ñëpp ñoo ngi xaar Sadio match contre Manchester City Sadio Mané jënduñu ko pour contre Osbourg, jënduñu ko pour ay équipe yu ndaw Fribourg non non non ku yaakaar ne yow jënd Sadio Mané pour loolu non non wala pour gagner championnat wala pour coupe d'Allemagne sans Sadio Mané Bayern na daan jël loolu. Bayern bu ñu jëndee c'est pour gagner la Ligue des champions Bayern même mentalité bi nekk si Barcelone Real moo nekk si ñoom maanaam boo ñàkkee Ligue des champions daanaka day mel seen pour mu ngi mel ni Paris Saint-Germain ñoo ngi nii war a jël championnat si jëluñu dara quoi en fait xam nga donc euh, Sadio Mané am na am na am na am na rendez-vous rendez-vous bu mag a mag a mag c'est pas pour rien gars yi poser que question du hasard du hasard ñu poser que question ne ko kañ la ñuy trouver le Sadio Mané Liverpool du te football moo demee noonu football ci équipe yu mag yëpp critique dafa gaaw salaamaaleykum maaleykum salaam critique yi taxaw. xam nga donc kii est-ce que na ñu koy waaw salaire bu mag lañ ko fay fay tout le temps am na ay excuse dafa blessé nee na mënul jouer tel côté nee nañ nee nañ entraîneur ni muy doxalee la nee nañ mënul mënul jouer possible finalement gars yi bu ñu tourné gauche tourné droite xool si digg bi danaa Sadio Mané yow yaay problème bi plus les joueurs joueurs yi ñooy dugal seen i bii teg na teg nañ la poste teg leen la attaque jour ñu ne yow entraîneur bi entraîneur bi dàq nañ ko andi nañ beneen entraîneur entraîneur boo xam ne nekkoon na Angleterre xam nañ say capacité te yow gisoo donc coow yow la xam nga donc pour vous dire que ne voilà moo tax maa gis benn coow buy am si Sénégal yi gars yi commenté Leroy Sané c'est que Leroy Sané c'est que amuñu finition bu bu bu Sadio Mané ñoom ñëpp ñoom boo xoolee comment Leroy Sané Gnabry ba même milieu je peux dire. amuñu par exemple finition bi Sadio Mané am maanaam Sadio Mané deux trois occasions mu dugal bu Sadio bu def bu amee deux trois occasions rote ko rek y'a problème c'est la xamante ne euh, bu ñu amee occasion yi dañ koy dugal Müller tout ce yëpp ak ñoom Leroy Sane ñoom ñëpp du si nekk si top 5 bi top 5 Ballon d'Or mondial Sadio Mané top 5 Ballon d'Or nekk nekk numéro maanaam àddina gépp ñu jël yi si nekk yëpp ñu ne yow mii di Sadio Mané dëkk Sénégal dëkk benn dëkk bi ñuy wax Bambali yow deuxième nga jël donc kooku mënuñu ko comparer ak le Roi Sané quoi Roi Sané dem na Angleterre mun woon imposer wu dëgg titulaire euh, City mënu ko woon imposer te Sadio Mané non seulement dafa dëggal boppam Liverpool nekk les box meilleurs joueurs Premier League jël trophée bi dugal meilleur buteur donc ñaari c'est incomparable donc commande ak ñoom ñu ay commande ak pour man ak euh, Sadio Mané commande problème am mooy mën na football mën na def ay match yu mag ñëw la dugal bii mais amuñu régularité maanaam régularité bi ñu koy wax mooy chaque match nga gis au très haut niveau comme Sadio Mané toute une toute une saison mën na nekk au niveau bu doy waar toute une saison mu Sadio Mané daaw final du moom rek moom moom moom moo kii moo tiital waa Real Je rek moom rek ba euh, Courtois la la wax Courtois oh, def bi doy pas n'importe qui quoi maintenant man wax sur l'aspect physique je trouve que physiquement parlant sama xel dal maintenant euh, nan lay amee euh, ay combinaison dans les petits espaces donc parce que beneen day bëgg def liggéeyu percuter bëgg dribbler bëgg a tirer mais t'es t'es que littéral mon frère kenn bañu ko def loolu mais combine avec Sadio Mané benn Leroy Sané parfois ay ay joueurs kenn xamu ko mënul mënul jàngal Sadio ay appel et que boobu mu def du loolu du geste dara ak yéen muy ma déglu bu baax xam ngeen ne football parfois xarit bi la gën a jige da ngeen football amateur la wax da ngeen football nii mu sa loxo yenn saa nga def sax lu gën a garaaw li Leroy ñëw ñeen ñaar nii non non man góomu ne problème déjà que le roi Sané tag bi Sadio Mané ñëw dina ko numéro 10 baa ngi nii ne man bëgg na football ak Sadio Mané sama xam mbokk sénégalais am la bu dara. bon euh, dans le dans le jeu nii ça peut être sauf mais mel ni comme ça Salah quoi je trouve que ba tay mo tane quoi ba tay le roi Sané wareegul loolu man dal bu ma gisee lu leer nañ comme quoi mom day xawma day def day def sauf Sadio Mané dëgg moo wax ko quoi. seen jeu mo mo moo des par exemple je bouge mo bi bi c'est pas c'est pas un jeu Benzema quoi nan la xaw ma nan laa ko mën a c'est pas un jeu Benzema c'est pas c'est pas un jeu collectif boo dañuy jouer tac tac tac c'est des jeux plutôt yo xam ne dañ jox couloir ñu jël course def xam retirer centre yo mais c'est pas des jeux techniques yooyu non xamante du du xam nga yo xam ñuy jouer ni nangam nangam et aussi tamit première saison la il faut que mu adapté wu il faut que mu adapté wu aux football allemand football bu waa bu Bayern en tout cas limu mu leen wax moy que presse Allemagne allemand bi. ñoo ngi xaar bu baax a baax a baax Sadio Mané si match yii di ñëw nii surtout match contre City donc Sadio Mané on est derrière toi Sadio Mané si weeru koor bi ñoo ngi ñaan bu baax a baax suñu borom sutural la nga dugal bii ngeen nga qualifié sax waa man waa waa Bayern loolu laa lay ñaanal parce que gaynde nga te am nga gëm-gëm te finalement euh, dañu am ci yaakaar bu baax mbokk yi li ma nekkoon vidéo bi ci commentaire wax leen ma seen xalaat ak seen gis-gis ma jaay jëfal